Aïe salon en tissu Aïe salon en velours tout bas Ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons Au nom Hôtel Dakar le chic en toute simplicité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 votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. 77 087 11 11. MT Couture, Mam Tcherno Couture, des costumes africains sur mesure avec des finitions exceptionnelles. Retrouvez votre émission Je te surveille du lundi au vendredi sur la 216 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Retrouvez votre série Belle Famille tous les jours sur la 2S et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Eh, du poiton de, te xoolal xoolal lii mooy poiton. wax naa ne Ndiaye dafa mën a nettali Ndiaye fu mu toog day wax. man du ma tooñ de. li nga nekkee dañ ci génn par force. si ñu nga combat budul bëri nag yow. bombal bombal bombal bombal. mok mok mok. Retrouvez votre série Belle et Moussa chaque lundi et jeudi sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Dija Shop, Nene Lady Muna Noblesse, M60, Cap Design, Nabo Création, Grande Royal Chic, Diamond Shoes, Fine Aiguille, Maktoum, Koulibaly Fall, Le Pop Shop, Minawa, Fadia, Masiri, Tolina, يكتما شو كيف صاري يا كاجي تلما ما يدخدي دم من يودان الما ما يباكي جوك بنتا يما alors toujours pas de nouvelles. oui ça sonne dans le vide mais kenn jóg am nañ localisation nañ dem moo gën ñu toog fi di xaar. dem fan mënoo leen dem je vous ai dit que c'était dangereux. Bocar Linda a raison bu ñu toogee fii di xaar on aura moins de chance pour la sauver on parle d'une fille qui est en danger déglu nañ la on est passé par la police mais joxewul dara lan nga bëgg lan la ñuy toog di fi xaar. mais lan ngeen bëggul dégg je vous dis que c'est dangereux mënuñu risqué liggéey ba yegg si fii pour une vie alors que mën nañ ci sauver ñeneen mais waxal ak Hé, hey que nga dem ou pas ñun dinañ dem. nu ma leen tere ñu sauver seen xarit mais Mati Bocar il a raison wóorul te xamoo la ngeen di fa fekk ah mënuma ñàkk Binta ba pare di la ñàkk yéen ñaar tamit xam nga c'est un trop gros risque. dañuy dem Linda. non mais mënoo leen dem fenn. non bàyyi. Taylo bàyyi dañuy dem Taylo. mënoo leen dem fenn. Bocar buñ fi toogee dañ koy def bàyyi ñu dem. ok d'accord on va y aller mais du leen bàyyi ngeen dem ñen kessé je vais y aller avec vous.

Yo, da nga bëgg wax ni que man maa la trahir Quel intérêt laa am pour def ça..? comment ça se fait que la police débarque là-bas. maam je t'assure je t'assure que xaw ma ni police def ba xam opération bi te man xaw ma sax fan ngeen doon dem te bul fàtte ni lépp lu la mënti dal daf may affecté man tamit. d'accord tu as raison. kan ma war prévenir police. Maintenant, je Kham. Je j'en ai aucune idée. je te crois ma petite fille je te crois maa ngi tout de suite. Maman..! Et Binta.

on va essayer de sauver la maman faire perdre deret bu bare te actuellement suñu banque de sang yi dafa vide ma elle peut s'en sortir bu fekkee ne que am ngeen ñu ko mën a may si deret ngeen ñëw may si ko heureusement elle est receveur universelle ah, kay loolu kay neex na docteur jërëjëf dinañ ko lijjanti Maria wax na dëgg metti na mais de bu ñu mu génn si lii il faut ñu wut comme ko may léegi nag xoolal lan la nañ dem toogal bu baax sesul sësul te nga toog ñu nañ dem commencé may am ñu temps moom bu ko defee mu woo suñu contact yi ñëpp daal di ñëw nañ dem non man lan la mënul may dara dafa anémie dafa feebar yow demal nga may la temps que ñu xool suñu contact yi kan lañ mën waaw ba tey loolu am problème tu es sûr que là..? la. là ma localisation exact. Nous sommes non, non, séparé ñu non, ndax Linda. Mati. بول واخ لول دافال نانك وول بان نانك لاك لان مو خيو اكزاكتومون بانا انا بنتها Nous avons fait une localisation mais nous nañ fi une il trouvé du sang là-bas. ils ont tout nettoyé. Ils ont tout nettoyé. Ils ont tout nettoyé. Ils ont tout Ils ont tout je suis désolée. c'est trop tard. tard. c'est trop tard. رين البنت ليندا ليندا لا موخو بانا لم موخ رين رين البنت كريني لي بخمون ناكو لي بور بور يسون دغو depuis le début سانتيرون ناكو nako pour na le tere سما خال مو sama xel

je le reconnais je reconnais que c'est de mon erreur xam nañ chirurgien bi xam comptable bi tuuti moo des ñu am registre d'activité bu boobaa ñu daaneel leen ñoom ñëpp sudul police muy opinion publique amatul teelu ginnaaw dinañ ci waxaat Allô allo là. allo Da gaawal ñeu hôpital jéem naa Linda ba sonu mais jotuma leen ñoom linda ñu ak man lan mo xew. so de mo am complication ci accouchement wam bi dafa soxla deret il faut le maximum de personnes ñëw may ko yeen rek lay xaar gaaw leen. Linda ak Matin duñu mëna a mhm. mais j'arrive tout de suite ok. gis nga yow ñàkk nañ benn bakkar laa wax te mais duñ ñàkkaat ñaar Soda mi ngi hôpital elle a besoin de moi yóbbul ñeen ñibbi nañ ci waxaat. Федмой.

sois pas comme ça toi aussi. Fatoumata nous sama xel ba amul nouvelle Binta Ken ci ñun xamul fu mu nekk xam ngeen ne Binta tàmmul def la li nga wax la mais gis nga instant bi ñun a Fatoumata a raison Aisha. je mal dalal la xel bi. ak déposer avis de recherche mais pour l'instant nous nañ aller hôpital rapidement. oui Soda aura besoin de nous. t'inquiète pas suba man dinaa la gunge police ok. léegi dem nañ jël seen bagage foog ñu dem ok. daal nii rek lan lay bëgg a bàyyi. Ibra dimbali ma de ma fenn ba ma rek ma tëdd fi sama tëddaay bi dew ma fenn ah. loolu warula ak lu mën a xew ak damit lu ngi mën a jot fee yow yaa jiitu nga soutenir sa doom loolu mooy dëkk soutenir. doom <laughs> man kay amatuma doom doom kay jabara ko remplacer léegi doom dina daq ndeyam ci ndax jigéen li butéel bi def moom la sañ bi di xëeñ dama ne deret ji daw ci yow deret jooju rek mooy daw ci damel Ibra yaa gën a xam ne damaa bëgg damel Ibra damaa sonn ci damel muñ kër baayam gii lu metti ak lu tàng ak lu sedd daj fi lu ne yaakaaroon naa ne ci àdduna dammel du ma jëndee jigéen mukk yaa maa fekke dembu maa fekke tey dammel ba nga koy jur kenn jàppale wu la ci nga jur ko fi nga ko war a juree yar ko fi nga ko war a gërëm la ay mbokki bàyyam gërëm la loolu rek war naa tax nga génn li nga denc sa xol bañu dugal seytaane seen diggante jabaram jooju buñ dee xool ba xool mooy seytaane bu mag bi dammel dafa mësa am ci man yërmaane yow xam nga ni pexe jigéen dafa for te yow yaa ko wax dammel lu mu dugg jabaram jooju moo ko ci dugal. ça va vous allez ak Linda maa leen di woo mais jotuma leen de. man tamit essayé naa woo leen de ñu ngi woon ak daam mais xam naa duñ mën ñëw. lu tax. Ah, waxuñu ma ko de. mais daa moom anam.

Aujourd'hui, on est là pour sauver une vie. Il n'y a pas le temps pour les chichis. Fatouma Dabaïma. Bonjour les filles. Bonjour. Madame Taylor, mon nom est Aïe salon en tissu Aïe salon en velours tout bas Ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons eh le poiton de eh, te xoolal xoolal lii mooy poiton wax naa ne Ndiaye dafa mën a nettali a fu mu toog day wax man du ma tooñ de li nga nekkee dañ ci génn par force si ñu nga combat boodul bëri nag yow bombal bombal bombal bombal mok mok Retrouvez votre série Belle de moussé chaque lundi et jeudi sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Retrouvez votre émission Je te surveille du lundi au vendredi sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Retrouvez votre série Belle Famille tous les jours sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Madame Tello, lan moo xew lan de dal Linda ak elle n'était pas en état de venir Malène. lu xew. maram Thélo lan Pinta. Pinta. Souffre. non non non déedéet. lii foog ma dem wax ñu ko Aïcha banal s'il te plaît banal ngir yàlla c'est pas le moment dama la ko ñaan bu ko wax dara. mais lii foog Aïcha yëg ni yéen yéen a reylu seen xabaar. reylu wuñ ko banal reylu wuñ ko. dama la ko ñaan xaaral tuuti rek qu'elle se remette de leurs émotions ok ba pare kenn su ko waree wax Aïcha Linda la war a doon s'il te plaît rek ko wax dara. ngir yàlla. bon maa ngi dem xool bébé bi dégg nga loolu muy jeex. xam nga soo def comme doom ci moom xam naa loolu rek moo tax mu triste euh, maa génn am lu may def ci te ñëw. fay benn urgence bu ndaw bu mu war a régler yóbbul Aïcha kër ga Aïcha. def bêtise Aliou. Assalamualaikum Waalaikumsalam. وعليكم tong فبا tonton tata ma ngi sant buwer ana ana soda soda yewo gol de kon muccugul ankay muccu na eh, muccu wa demal mo xane ko fi damel ankay mo maria ya, fi lañ nekkon legi bay sa dang ci jamm rek damel mi ngi ni wa mi ci jamm wa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya no gëna nga def. damel. Yaa ci jamm damel. Damel an soda wa muccu na ci jamm. Santu bu baax yaay. Eh, accouchement bi mo am ay touti complication waye bébé bi mo mucc na ci jamm Soda daal moo yeewoogul. ah aywa nijaay yow lan moo yor tal loolu du doon suñu doom ji. loolu baax na mais. am doom rek yeewoogul ba léegi. nañ demoon rek mu yaay ji benn desal da yo napp yo xool ko yow xool ko yow yaay ni la meloon ba mu nekkee bébé yo ndeysaan yo moom kay yàlla baax na ba eh? jëlul bakkanu bàmmeel bi rek la yow moom kay ndeysaan benn la kan la yo mais yàlla mu jël ay tànku yaayam loolu tamit lu am solo la ah. tenez s'il vous plaît merci beaucoup dégg nga sama wujj bi. Hmm. avant accouchement bi man ak Sori sekkoon nañu waxtaan mu expliqué ma jot xew seen diggante yëpp bi ngeen yëgee si li mu nekkoon mu nekk loo xam ne metti na ko torop ba tax na tey mi ngi rëccul lépp li mu doon def ah, moo tax ma yaakaar ni su jëlee tey yoon bu baax bi mënu ngeen ko jéem a te jéem ko encourage si li mu nekk ndax mu sax si. mais mu sax ci mooy lan sooda mu ñu ko bañal dara amul luñ deful ngir sooda hmm? sooda xëy jël yoon bu xam kër xamul yoon nan la ñu yàq ci njub yàq ko ci mbaax manqué wul dara. yaayam ji di wegg li may wax dalanda man de jigéen laa waaye papaam lépp lu mës am rek sacrifié na ko ndax moom tey jii xam naa ne tey man man mi yeluma ay min yu ma ko jox waaye yel nañ ko ci doylu yel nañ ko ci diine jàngam papaam taxaw ci musula ñàkk dara kon tey lii mu def ni waxuma oh, dara mais man نقر خلق ما خلي بيته خامو فن لك وغني تي أدنى ليا ليال نما يالا تهاو نين ديك دونت لين موسم كتود واي خم نانة متنا نحتاج صور هم لين تول فين في ما تول نما فكراو تلو من داون داو خم ناكو بباخ نيب كنوكو جيجن دو باخ لا مي مي يا جيجن دو باخ نالي من جاي بفهم bon mënta weesu doon dum julit ñu yaral ci mbax nga xey jël sa yoonu bopp sa bakkan def yu bon yu xam kenn xam fu ko so jele xelu xale kessa moko jappon ak yag bëgg liberté bi ngeen ko yag xagn nak mais lo bu ko fofé ko sa dëgg ko lu nekk ñu ko dugal ñun eh du duñu ay nasaran ki même boko baron tay même suñ ko baron tay la wax lu tax mu dindi limu def ci réewum ci lu bon yàq sama der man yàq sama askan soor kenn mu tax bax ci aduna te man sax day wax soor indi ma fi nogay ma fa tax a ñëw nako neko fu soor nek ci aduna sama tànk bi bu ko fa deug mu ci aduna mi yow yaangi wax comme si juro soor kat. et alors. mais dom bo jur am na leneen loy mel ak mom loolu diko top ci ay erreur nogay xana yow man mën naa wax ak yow nga baye lépp. teg lépp ci suuf ngir yàlla ngeen baal sooda sooda mënul am lu leen sut te li may wax nii du li ma set ak moom moo tax ma koy wax de mais xam leen ne lépp lu baax si moom yéen ko def. Yolanda li nga wax lépp dëgg la waaye def di ne sooda dafa def lu defuwul nag man mi am na dul benn yaakaar ci moom sooda xëy tey defee nii ah man nag. tey fii mu jaar tax na ba mënatuma koo téyel dara ku ne xam na am am doom ni mu mel métti bi mu bi mu def tey jii tax na ba sama benn bi daal mënuma koo bañ a baal daal. yow su fekkee sa ko mën na ko yow nga baal ko yow mais man du lu may mën a ndax soo woon naa suuraal lu bon yi bu koy def lii dina ko ci fekk. merci de coucher de soleil bi. mais c'est normal. Hmm? vraiment normal euh, man aussi dama soxla un moment de détente bi tey dama amoon une opération chirurgicale très compliquée. bon Ouais. Bah, c'est vrai nag sa liggéey xam naa ne war lu yomb. yombul yombul léeg mais habituellement du yomb. ah c'est normal. Ben, leneen li mooy dama bëgg li des ci soirée bi man ak yow. ak yow ñu passé ensemble. yaa ngi tëb ay étape ah. yow xale yi sax présenté gu ma leen. waaw mais pare naa pour loolu kañ laa di gis. teel na trop pour loolu. li ñu taxaw fii sax wóorul bi ma waxtaan ak ñoom ba pare après ñu xool. Mbaye yow doo soxla permission. du sax mais comme xale ñoom man ak ñoom la woon bi muy métti.

d'accord Mati dalal eh sa xarit bi dina ci génn yàlla dina ko defal jàmm d'accord Mati yow tamit bàyyi sa joo bi nag yow tamit nag. suba ba tey nii la mel xaw ma lan moo ko dal mënuma fexe ba mu wax ak man xanaa nag yow dina wax ak yow. te tey Linda warul wax man maa am ko war a wax. Hmm. kon baax na maa ngi Linda Linda lii yëpp waxoon naa la ko bul ci dugal biir taal dëgër bopp Linda, ni ba kañ d'abord après Wednesday la léegi Binta kan nga war a reyluwaat kan moo nekkaat ci liste bi bin man Fatoumata ma dem Mati wala Bana ta Linda eh, tontu ma man yow la nek di waxal Aïcha Binta rek la amoon moom kese la nga xagn koko. mais comment tu vas vivre avec ça Linda. Linda, est-ce que tu te rends compte que Linga y yàq tout ça à cause a à ton combat Linda Fatoumata waaw moi lépp man là. Mata Binta dee Mata papa was dee ما تقسم ايه ما تسمعي يا ادي تسمى صدق الولي بدو مليام امنا ببرم منسو انتلو جنا تما ليغا وخني دما nga wax ka ñi dee ñi nga xool ba Linda te nga Linda li ëpp na la doole j'en suis sûre que am na ñeneen ñi nga xam te ñoo ko ëpp pexe ñu ma daanee professeur Diop. ana ñooñu Fatoumata Fatoumata ñooñu fa lañ nekk ñun kase ñoo fi nekk ñun kese te Fatoumata su bëggoon ñu daanee professeur Diop doo dem ànd ak moom ba mu ñuy rëcc. te nga bàyyi lii balaa ngay ñàkk ñi nga bëgg ñi نقل لخولي أشا ديك أهلي دو دو دو دوكم سبان dofuloo gis nga ba nga xamee lii yëpp mënoon ci bañ dugal Binta mu bëgg nga wax ma ñaata nit ñoo war a dee ñaata innocent ñoo war a dee pour nga arrêté di entêté wu ku nekk nga bëgg dugal sa combat ku jug nga bëgg dugal ci xeex bi dama sonn si nit ñi di dee à cause de cette vengeance Tinda tuuti nag laa la may nga dem xooli ji Aïcha nga wax sa dëgg bi du man maa ko war a wax yow yaa war a wax ndax lii yëpp yow yaa def te gis nga boo ko deful man dinaa ko wax. waaye xale bi na yeewu waaye man soo rek laa am ma doon ci rek laa am Soda yeewul ay waaye Soda waxal ak man Soda Soda yaay Soda yaay. déedéet déedéet àndal ak sa xel bul def nii yàlla baax na. ànd nañu xoole Soda. ma ngay xoole wooy yàlla dikk na ma ngay xoole wooy dame